Sénégal dañoo jàppoon ne moom mooy vitrine démocratie ci Afrique normalement notamment en Afrique occidentale mais moom bi mu yéegee rek la yëpp yàqu li koy findel nag ñeent la mooy ëttu attekaay yoo xam ne moomuñu seen bopp amuñu indépendance seen diggante ak le pouvoir exécutif maanaam lu pouvoir exécutif bëgg ci justice bi da koy am man mii man mii ci justice laa liggéey pendant trente ans te li ma doo xam naa xam naa ko bu baax mooy xale yi ñu jàpp tëj leen ci kaso bi ndax bu pour des motifs politiques défendre ma nag ñi nga xam ne dañoo toj yàq yëf jël fi jàmbur yàq jëfu jàmbur ñoo défendre ma leen mais am na si ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi te defuñu dara donc loolu vraiment dafa nekk loo xam ne dañ koy ñaawlu euh, beneen bi beneen firnde bi mooy depuis mai 2023 euh, manifestation bi bi amoon à la place de l'Obélisque ba position avait fait une démonstration de force wane dooleem dëgg depuis boobu nguur gi dafay tere dafa tere toutes les demandes de manifestation te ci ñaari firnde rek lañ ko lañ ko wekk ne y a des risques de trouble à l'ordre et puis beneen bi y a des risques de de de l'entrave à la circulation maanaam dañuy dañu war a loolu loolu taxawul. beneen bi mooy tas bi ñu tas parti bi ñuy woowee Pastef loolu moom Sénégal moom firnde na moom rek doy na doy na ci firnde ne Sénégal dafa dellu gannaaw ci wàllu démocratie ndax depuis 1960. avec la dissolution du PAI de Massoumou Diop la ñu gën a dégg dissolution parti au Sénégal. ne Macky wax xawoon na ne du dem troisième mandat ba ñëpp félicité ko man mi bokkoon naa ci ñu ko félicité waaye bi bi mu ko waxee ba léegi mu ngi def ay ruminaat pour imposer ñu benn dauphin mooy Amadou Ba loolu nag Sénégal yi ko nangu dax su fi Amadou Ba toogee même régime bi mooy continuer rek loolu nag Sénégal yi ko nangu ndax su fi Amadou Ba toogee même régime bi mooy continuer rek. li ñu doon jooy ci Macky Sall moom la ko ne di jooy ci ci Amadou Ba ndax c'est le même système dafa bëgg a nekk ci ginnaaw téye système bi di ko gérer boppam te loolu bu ko benn sénégalais nangu ñu on aspire à un grand changement ay rupture ci ci la dans la gestion de ce pays là seetlu yooyu lañu ñu sukkandiku ba sama waa parti na ma daal yow il faut nga sóobu ci présidentielle yi donc ma leen di wax ne yu ndaw Bés ni tey candidat la ci élection président candidat à la candidature jot naa samay samay fiche de de parrainage démb donc bés ni tey tàmbali nañ ci jublu seen nañ ci jublu li ko wax mooy que ñun su suñu suñu excès eh, li ñuy wax rupture ni Macky Sall doon gérer réew mi dinañ ko jël sànni ko fële parce que ñëpp gis nañ ne ni muy gérer réew mi baax dara baaxu ci.